asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi codice de la strada ñu ngi leen di ziare ñëwaat euh, leeral demande bi nga xam ni moom lañ dugaloon démb euh, ma gis ni nag vraiment li ëpp ci ñu ko tontu weeroo lañ def 68 pour cent ci ñu répondre macha allah léegi 32 pour cent yi moom dañ ko faussé comme ñu ñëw leeral demande bi comme ñu ko doon defee di wax ni rek man ngeen a abonné bu fekkente ne mosoo leen abonné ci canal bi euh, di emee di commenter bu ngeen amee demande ngeen posé ko ci commentaire incha bu ñu ñëw dinañ ko leeral. Euh, léegi demande bi li mu wax mooy per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione bu fekkente ni yow sa bopp bu ko indi danger wala barre circulation bi è necessario osservare non solo le norme sulla circolazione mu ne bul yem rek baax na ci nga bañ a yem rek ci li nga jàng ci code de rek ma anche le cautele dettate dal buon senso mu ne waaye nag ngay jëfandikoo euh, buon senso maanaam ngay jëfandikoo sam xel am na foo xamante ni xel mu rafet moo la ciy génne par exemple nga ne foo xamante ni yow yaa am précédence sax ci incrocio bi ñu ne yaa war a dem mais kii la war a may mayu la mi ngi njëkkante yow foofu nooy def li nga war a def mooy jëfandikoo li ñuy wax bon sens bàyyi ko mu dem parce que boo njëkkante ak moom euh, accident mooy am te accident kenn du ci gagné dara kon nga bàyyi ko mu dem mu moo ëpp jàmm euh, ak yu mel noonu lépp loo xam ne daal jàngu ci code bi mais boo ko defee mu indi loraange wala mu indi barrage bu boobaa li gën mooy nga bàyyi ko rek mu sedd Euh, di wax ni rek mi ngi noonu euh, commenter comme ni ma ko waxee ngeen aimé ko jël ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.